jëflante gi diggante cheikh ahmadou bamba ak téere bu tedd bii di alxuraanul karim lu ñëpp xam la muy àndandoo goo xam ne sax na dàq waaye tamit di bu dëgg boo xam ne jëmm mbinum sëriñ bi moo koy firndeel loole waral ci fépp foo xam ne nekk na fa mu amaloon nose bu ni mel ngir rek mën na saxal njàngum alxuraan jaare ko nag ci daaray kaamil yi ci tuuba jumaa ju mag ji moo santu barab bile du luñ sos fii lu sëñ Touba sosal boppam la Euh, da daa day def fu mu jëm ànd ak alxuraan fi mu daa jaar fépp it nag dañ ko fa daa jàng nii baag si fii moo lay wax naa raafaxa nii mushayahan lil janna daaral xëréeri wal mun a wal min na nee yaa alxuraan da nga ak man ba ba dem àjjana kon nag loolu mooy loola lu muy dem ci géej gi da koy yóbbaale bi mu dikkee nekkee jolof ak euh, gànnaar doko ko da ko da ko daari ji dafa amoon ñu di ko jàng bu set nii ñu ko daa jànge kon nag euh, bi mu nekkee njëriñ it mu nekk fa ak moom xam nga njëriñ bi gën a yàgg moom xam nga fukki at ak juróom bu ñu ñibbisee Tuubaa moom fu mu jëm day ànd ak moom mu ñu ñibbisee ànd ak moom. ni nga xam ne ñooy amal njàngum alxuraan bile ñoo ngi toll ci lim ñaar fukk ak juróom-ñett muy ñeenti kaamil yoo xam ne des na ko dooree ak ñaari kaamil ci suba si ginnaaw julli fajar beneen boo xam ne dinañ ko amal ginnaaw julli tisbaar waaye itam suñ julee tàkkusaan ba Abdou Diop imam bokkoo ci kuréel gile moo ñu koy leeral. Euh, ni koy jàngee nag moo di bu euh, xëyee ba jant fenk ba yëkkati ko tuuti danañ jàng ñaari kaamil. bu ginnaaw tisbaaree ñu jàngub kaamil bu ginnaaw takkusaanee ñu ñu jàngub kaamil loolu mooy doxin wa ña koy jàngit day am ab lim nga xam ne du ëpp du yées mu ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo koy jàng bu yàlla demee ba def coobareem bañ wàññi ko it ñooñee xalifa bi moo leen doon moo leen tànn mooy tànnaat ka leen di kay wutu kookee loolu mooy doxin wi lu mën di xew ak lu mën di am ñeenti kaamil yii le des na ko jàng bis bu yàlla sàkk muy lu sax dàkk ci mboolem ñi nga xam ne nekk nañ fii ñenn yi sax jëlee ko ci seeni way jur kaamil yi moom bis bu set danañ ko jàng ba mu àgg moom doo am benn bis boo xam ne benn kaamil dana ci manqué ñi ñi ñi koy jàngee ku ci manqué da ngaa am yitte joo xam ne dalaa da daa dox sa diggante ak loola ba mënoo ko waaye kenn du ci ku tukki kenn du ci def fenn dem fenn loolu mooy doon seenu liggéey ku xëyit ci bu ñu xëyee ci la ñuy nekk bu doon bisu korité wala bisub tabaski màggal lu mu xat-xatit moom ñaar fukki kaamil ak eh, ñeenti kaamil yi ñuy jàng par bis moom du manqué benn yoon ne kaamil yooyu it eh, sëñ bi ci boppam eh, am na secret bu mu dugal ci biir ndax day mel ni juróom-ñaari fan yi buñ ko jàngee loolu boo ko seetee ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett lay doon kon kon day mel ni loolu loolu ñi fi nekkit lu ëpp ci ñoom nag amuñu geneen liggéey lu dul jàng ak jàngale alxuraan muy kuréel goo xamee nag moo ngi aju ci kilifteefu xalifa général des mourides amuñu liggéey bu ñuy liggéey beneen bu dul njàng alxuraan bi bu amee benn liggéey bu ci rax daal moo di euh, daaray alxuraan lañ yor ñu ci ëpp ñëpp dañuy jàngale alxuraan ba njàng mi jot ñu njëkk jàng delluwaat ci seen daara de fii sax doonul béréb boo xam ne dana fi toog lii ngeen fi nekk sax moo tax toog fii waaye kon dañuy def bu noppee ba ñaan rek ñëpp tasaaroo yitte daal lañ ci def yitte ju mat ñi ko ñi koy jàng it maanaam mooy ña daa jàng bu njëkk rek ki nga xam ne moo nekk sama ndeyjoor ak sama càmmoñ ci liy firnde ji dama ko ci leeral rek seeni waajur ñoom nekkoon nañ ci daara ji waaw bokkoon nañ ci ñi nga xam ne sax dañoo jiite woon daara ji di jikkee mu di jikkee mu sëñ xam na ko ci diiru ay bés maanaam juróom-ñaari fan ñaar fukk ak juróom-ñetti kaamil des na ko wàccee file muy limat goo xam ne dëppoo na ak araf yi nga xam ne ñoo tënk baat bi di Touba kem ni nga xame nag noonu lañu koy defee ci jumaay Touba daaray kaamil am na itam ci yenn jumaa yu nekk ci dëkk bu sell bi kër gu mag itam Jurbel waaye tamit fépp foo xam ne njabootu sëriñ bi ñoo ngi fa yeewoo muy njàngum alxuraan boo xam ne lu sax dàkk lay doon kem ni nga xamee ne noonu la ko nase woon liggéeykatu yonent bi xaadimu rasuul